Amis sportifs Yu Sport jërë Jeff jëf d'aller ngi de ce vendredi 22 décembre 2023 ñu tàmbali ko football coupe d' afrique des nations buñ nar a amal ca Côte d'Ivoire ñu jàpp ko le 13 janvier dem ba 11 février démb ci ngoon si ginnaaw communiqué kaaf xam nañu arbitre yu nar a bokk ci boobu ndaje ñu ràññee si ñett sénégalais kenn ki nekk arbitre central ñeneen ñaar ñu nekk ay assistant muy Issa Sy Djibril Camara ki nga xam ne nii moom mooy Noah Bangoura ginnaaw équipe nationale bu Sénégal ñoom dinañ daal di représenter Sénégal bu baax a baax ci compétition boobule ci sélection boobule Maroc ak Égypte ñoo ci daal di ëppale ku ci nekk am na sept Algérie daal di ci topp am cinq arbitres Côte d'Ivoire Gabon ak Sénégal am ku nekk ñetti arbitre Ligue Pro mën na la nekk suñ troisième point ak xabaar bi jugee ci Guédiawaye FC club boobule am na entraîneur bu bees mu ngi tudd Ansoumana Diadio moom nag ràññeewoon nañ ko moo fi nekkoon entraîneur bu Casa Sport moom nag ci fan yi ñu weesu la jugee Casa Sport ginnaaw bañ ko jëlee ci bopp équipe bi la Ansoumana Diadio moom li nga xam ne nii jël na fi coupe Sénégal ak championnat moom nag moo daal di mbay Mbaye Badji ci bopp Guédiawaye FC technicien sénégalais boobu la signé na lu tolloog ñaari at ak Guédiawaye FC ñu desandi ci Ligue Pro daal di leen dipteel programme neuvième journée bu Ligue 2 ak bu Ligue 1 ñu daal di koy tàmbali ak Ligue 1 samedi benn match képp mooy am mooy choc bi na dox ci diggante Teungueth FC ak Jaraaf de Dakar dimanche jamono Fatick dina daal di dalal US Gorée Linguère itam mooy dalal Dakar Sacré-Cœur Guédiawaye FC dina dem ca Lat Dior jàkkaarloog Génération Foot Stade de Mbour moom mooy dalal Sonacos mercredi 27 décembre ASC Pikine mooy daal di dalal Casa Sport foofule ci Alassane Djigo US Ouakam ikam mooy daal di jàkkaarloo ak Jàmbaar de wi ñu ngi ko jàpp bu 16h30 jotee ci Ligue 2 ñeent match dina daal di am ci samedi bi mooy daal di daje ak Walidaan Demba Diop moom mooy jàkkaaloo ak Thiès FC ñaatale dafay dem foofule ci ASC Douane Seneps Excellence moom mooy dalal Oslo dimanche 24 décembre ñu daal di am daje buy dox ci diggante Amitié FC ak Duc Ñambour ak Kër Madior jongante bu mujj ci neuvième journée bi nañ ko daal di amal mardi mun na dox ci diggante HLM ak AGEL foofu la ci stade HLM.